rendez te dañoo gis ne nag président Macky Sall le président de la République moom moo jël ndogal ndogal bi mooy ndogal bi ñu bi ñu dippee numéro 2023 347 du 21 février 2023 daan na nag fi mu toll nii comme que ay licence la ñuy délivrer ak ay masteur man maa décidé jëlee école bi yóbbu ko ci loxoy jëwrin ji nga xamante ne nii moo yor njàng mu kawe mi. ah ñu seetlu nag ne depuis boobu ba léegi ministère de la santé moom nanguwul di gérer ENDSS jóge ci ay loxoom dem ci loxoy euh, jëwrin ji yor wàllu njàng mu kawe mi. bi résultat yi nga xamante ne nii moo ŋànk jongante bi jëmoon ci ñi nga xamante ni nii ñoo war a ñëw fii yokkaat seen xam-xam génn mi ngi nekk di menacer. mi ngi nekk di wax ne nañu arrêté formation bi. dellu ci suñuy bërëbu liggéeyukaay